asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyuku ci nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd am Amath Diouf di sénégalais dëkk fii ci Houston Texas ci États-Unis ma bëggoon a ñëw rek comme ni ma ko daan defee saa su ne indi sama xalaat ci tolluwaayu réew mi ak ci jongante yi nga xam ne ñu ngi koy waajal muy le 17 novembre 2024 incha allah. élection yi ñuy waajal di fal député maanaam ndawu réew mi maa ngi fas yéene ci yooyu élection di voter liste Pastef te kii di le premier ministre Ousmane Sonko jiite ko sama choix nag pour Pastef lu ko waral lu simple la dama fas yéene arrêté bépp militantisme boo xam ne maa ngi ko def ci taxawu Sénégal bu Khalifa Ababacar Sall li ko waral nag lu simple la man Amath juf ba mooy politique ba léegi musumaa nangu di topp politicien aveuglément déedéet li ma nekk ndaw yépp maa ngi doon militer ci parti démocratique sénégalais bu président Abdoulaye Wade ba may nekk collège ba may nekk lycée ba may dem université lépp ci parti démocratique sénégalais bu président Abdoulaye Wade laa ko militer ndaxam de sama waajuru góor Mouhamadou Moustapha Diouf foofu bu nekk yàlla na ko dàqal fi mu jóge yàlla na ko sunu borom teeru ci àjjana yi gën a kawe yi responsable parti socialiste la woon nekk ancien député parti socialiste ma nekkoon biir këram doon fësal ni man Abdoulaye Wade laay àndal kon musuma nëbbatu ci sama wàllu euh, choix politique sama ànd ak Abdoulaye Wade boobu nag maa ko arrêté en 2004 maanaam quatre ans après mu jël nguur gi ndax li tax ma àndoon ak moom mu doon wàllu espoir bu ma amoon yaakaar laa dem ba yaakaar boobu tas ma arrêté boobu àndandoo ak président Abdoulaye Wade boobu yaakaar laa demoon tam ba gis ci président xalifa Ababacar Sall ginnaaw ba nga xamee ni fal nañ ko maire de Dakar première fois buñ ñu koy fal maire de Dakar en mu doxal tuuti mu am coow lu rëy lu juddoon ci diggante moom ak ambulants yi nguur gi di ko ji jàppale ambulants yi muy xëccoog ñoom mu am kàddu goo xam ne da ko yëkkati woon boobu laa ko jàppee woon nawee ko woon mi ne lépp loo xam ne dina nekk ci à son pouvoir dina ko def ngir embellir Dakar defaraat Dakar kon loolu mooy fexe ba jël ambulants fi ñu nekk yóbbu leen feneen xalaatu ci nag réélection bi di ñëw déedéet tiitu ko moom mission bi nga xam ne moom lañ ko jox moom la fas yéene accomplir ba ma déggee yooyu kàddu ma ne kii njiit la kii nekk maire de Dakar am bi doxalin am bi taxawaay il ne passe pas la prochaine élection ci laa commencé nag di militer di ànd ak moom di ko jàppale waaye tey yaakaar boobu ma amoon ci moom jeex na deñ na ndax nag man amaat képp koo xam ne dama lay jàppale ci wàllu politique duma la jàppale aveuglément ba loo def rek ma ne baax na gannaaw ba ñu taxawalee lis sàmm sa kàddu ma rafetlu ko woon lool ñu ànd ak pur ma amoon yaakaar lu bare ci Thierno Bocoum moom ci boom xam na ko amoon yaakaar lool ci kii nga xam ne moom mooy euh, Pape Djibril Fall moom ci boom xam na ko am yaakaar lool ci Barthélémy Dias ma ne woon coalition bii dina équilibrer les forces à l'Assemblée nationale awma sikk sàkk ni Pastef dina am majorité awma ci sikk sàkk wante ñu wàññi dooleem noonu nekkoon sama li xam ne ci loolu laa doon liggéey ak sàmm sa kàddu waaye ba ma demee ba gis ni sàmm sa kàddu dafa dem en intercoalition avec le régime de Macky Sall ma ne non non lii moom tout sauf ça mun naa am ak ñépp ci politique ba mu des kii nga xamee ni li mu def ci réewu Sénégal fii benn président mu su ko fay def Senghor nekk na fi mu am ay crise mu am ay moor Abdou Diouf nekk na fi mu am ay crise am ay moor Abdoulaye Wade nekk na mu am ay crise am ay moor mais Macky sàll dafa ñëw romb ñoo ñépp di def maa tey di yàq réew mi di def maa tey di rey doomu réew mi di def maa tey di jag eh, eh, maanaam yàq alal réew mi di def maa tey ba Sénégal kenn xamatul lu mu ndur mal bi la président Macky Sall def tooñ gi mu tooñ Sénégal képp ku mun a dem intercoalition ak moom pour ami député man dama naan kii kat ndekete Sénégal taxu ko jóg ba ma gisee intercoalition boobu si laa jël sama décision ni damay rompre sama ànd ak Khalifa Ababacar Sall man nag je suis une personne entière damay dugg wala dugguma duma defant demi mesure xaw ma ko te duma fi toog it naan damay absteniru déedéet damay voter comme ñëpp et incha allahu rabbi damay voter pour réew mi di def maa tey di rey doomu réew mi di def maa tey di jag eh, eh, maanaam yàq alal réew mi di def maa tey ba Sénégal kenn xamatul lu mu ndur mal bi la président Macky sàll def tooñ gi mu tooñ Sénégal képp ku mun a dem intercoalition ak moom pour ami député man dama naan kii kat ndekete Sénégal taxu ko jóg ba ma gisee intercoalition boobu ci laa jël sama décision ni damay rompre sama ànd ak Khalifa Ababacar Sall man nag je suis une personne entière damay dugg wala dugguma duma defant duma mesure xaw ma ko te duma fi toog it naan damay abstenir déedéet damay voté comme ñëpp et incha allahu rabbi damay voté pour Pastef bu Ousmane Sonko lu tax parce que un vote il est toujours motivé dama gis ni li olof di wax ni cin bu nar neex bu baxee xeeñ mi ngi commencé neex mi ngi xeeñ neex keroog bu ma njëkkee dégg ni nguuru le gouvernement du président Ousmane Sonko renégocier na ak Canal ba jëlee ñooñu lu ñu waroon fay ci ay centaines de millions yóbbu ko ci ay milliards laa ne yoon baa ngi nii ndax fii la ñu waxoon ni Eiffage ci ay lan ay euh, maanaam mille francs lu doon fay ci xaw ma combien ci suuf si mu waroon doon exploiter. contrat yi nga xam ne tey Sénégal si ñu na ko yëpp ku ko seetlu seetluwaat ko seetluwaat ko di nga mun a génn yeneen niche d'argent te ba ñu toogee ba tey gis naa ne ñu ngi jéem a def d'abord l'état des lieux pour assainir les finances publiques te loolu dama koy rafetlu dama koy encourager te loolu pour ñu def ko ñamit il faut que ñu mën ko def il faut que ñu mën a am Euh, une majorité à l'Assemblée nationale naam dëgg la une majorité à l'Assemblée nationale moo leen di permettre ñi fi def ñoom bi ñëpp bu fekkoon nekkoon nga ministre ñu mun la juger devant la haute cour de justice ba ci le président de la république loolu si dafa bokk ci samay vœu dafa bokk ci samay souhait moo tax. ba ma déggee intercoalition mu leer ma ni pare naa ci taxawu senegal moom allah kulli xaal ma jël sama téléphone ah woo président Ousmane Sonko numéro bi ma yoroon normalement jotuma ko bien sûr parce que boobu yàgg na te lu bëri changé na ci diggante bi jotuma ko wante defuma ci une fixation ma woo ki ma yaakaar ci biir Pastef muy Amadou Ba ma waxtaan ak moom ndax man su may dugg ci bërëb dama fay wut un mentor dama fay wut koo xam ne moo may moo moo moo may dalal comme nu ma demee taxawu senegal ni ma jëlee woon Malick Youm maa ngi koy souhaiter bon chance Amadou Ba nag nekk koo xam ni ci législative yi seetoon naa ni gisoon naa ni vraiment doon def liggéey bu liggéey mucc ayib ba ñu nekkee. Euh, Yewwi Askan Wi ma fas yéene nag jaar ci moom dem rejoindre Pastef waxuma rek voter le 17 novembre de mais rejoindre le parti Pastef jàppale leen fas leen a jàppale ci projet bi war a nekk nag ci ginnaaw Amadou Ba même fekkee ni maa ko mag waaye mu ëpp ma xam-xam ci li muy def ma fas yéene dem taataan ci moom gën a jàngaat ci moom topp ci ginnaawam nag jàppale ko ci li nga xam ne aussi muy communication bi nga xam ne macha allah tey ci Sénégal ku ñu lay wax ni communication nga ne Amadou Ba moo ci man ngir projet bi dem kanam ngir Sénégal soppeeku ngir Sénégal dem kanam mbokk yi xarit yi am di jàmm yi man Amath Diouf à partir d'aujourd'hui ne naa leen bàyyi naa lépp luy taxaw Sénégal yaakaar moo fa dugaloon yaakaar ba tas na te comme que man politique du ànd ci ginnaaw topp ci ginnaaw nit déedéet ànd nawle la ànd ak nit ki je ne fais pas la pour des personnes mais je fais la politique avec des personnes maanaam nga nawloo ma di jël sama xalaat di laaj sama xalaat waaye di décider rek yow loo décider rek noonu la man amaat Amath Diouf nekkuma ci boobu politique kon pour un Sénégal nouveau lii nag duma guléet ci man ndax comme ni ma la ko waxee sama jeunesse yëpp PDS laa ko passé waaye la ma leen jàppale woon rek xeex naa leen ko après de 2007 à 2012 ñu bëri nañ ah di yaa fi doon xeex parce que ah kay parce que dafa am fu ma bokkoon waaye malgré dafa am fu ma bokkoon nit jàppale naa Ousmane Sonko bu baax de 2014 ba 2021 Kheucha Gouche xam na li may wax bu a baax a baax baax a baax Sëriñ Sàmb xam na li may wax bu baax a baax a baax a baax a baax ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamee ni man ba may défendre Ousmane Sonko boobu ñu ngi toog di croiser les bras. kon tey du ma am benn kersa ñëwaat àndaat ak moom tànk rek mi ngi nekk intérêt au Sénégal c'est pas je ne sais pas de me justifier mais je je donne juste les raisons de mon choix parce que un choix il faut toujours le motiver yàlla na yàlla def Sénégal jàmm ak salaam au soir du 17 novembre 2024 yàlla na le am une majorité confortable à l'Assemblée nationale mun a dérouler sa politique